santul yàlla ci façon yëpp nag ku ci ne na la yàlla def na la neex yàlla bi muy bind doomu aadama daf koo bind ci anam bu rafet moom yàlla moo taggal boppam ni ni ma bindee nit rafet na laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim yàllaa tagg ni ni ma bindee nit rafet na mais nit nee na yàlla ni nga ma bindee rafetul moo tax xale yu jigéen yi léegi koo ci gis comme Balla gay Modou Lo ay comprimé la ñuy naan doom ya mbër ya doon naan pour am yaram léegi jigéen ñee leen ci remplacer ñu ci bari ay kopp lañu gis jigéen bërki démb ak démb xame ko ci yaram ñaari fan ñett une semaine mu ni fung mel ni nagu foora dap dap mais naan comprimé yi pour lan lu la yàlla mayul doo nangu ni amoo ko mais lu ne la ñuy dugg da ngay gis ku dem marok opéré ji yaram bi defaraat ko yokk ay ans nee na daa bëgg am ans am koo xam ne day pikiiru pour xees am koo xam ne day naan ay comprimé ñu pauvre ñi nag ñooy naan comprimé parce que mënuñoo mënuñoo mënuñoo soppi ji fa fa gaa yi soppee un million mais comprimé cent yi la ñuy topp koo ci gis mën nga ni guq guqiiral nit dafay demee naturel nit ni ko yàlla bindee noonu gën ci moom laqad xalaqna al insana i taq taqwim yàlla bi muy bind nit dafa xool anam bu rafet mu bindee ko ci yàlla bind la ngay soppi sa bopp fa la yu xayru fa la yu xayiru na xalqallaa la yàlla waxoon am na ñoo xam ne ma leen di bind ñu xëy xëy soppi seen bopp mooy dinaan comprimé ñàkk gëm yàlla ni la yàlla def na la neex bu la dara jaral soppeeku looy naan ay doom looy pataa looy bëgg yaram ki pataa pataa mooy cëram ki sew sew mooy cëram looy naani doom mais réew mi ngay gis ku kupp kupp xam nga ginaar yooyu nga xam ne da nga leen di jël dugal leen ci kër gi une semaine ñu toll nu leen neex léegi jigéen ñi dañoo bëgg a jël palaasu ginaar yi léegi ginaar yaa ngoog jël leen <laughs> ginaar yaa ngoog nee na ngeen jël kon jigéen ñi dañoo bëgg a jël li nga xam ne mooy place ginaar yi waaye dama naan jigéen ñi déedéet oustaz gisoo ni tamit xale yu góor yi léegi boo waxee ñu ne la ku tuuti ki daleen da leen ni sonal te ñenn si jigéen ñi dañoo bëgg sëy def nañ lu nekk solution bi mooy ñu dem jéem a uti yaram seen xel mooy dal wala dañuy naani doom waaye nag bëgg a sëy moo dugal xam nga bëgg a bu taxee nga dugg ci sëy amaana doo fa yàgg sëy moom toog ba sa biddiw fenk rek nga dem mais di créer ay affaire pour góor bëgg la ci bu loola deñee da ngay nax sa bopp parce que booy naan doom ba ba pataa bis boo reesee xanaa kon waa ji da bàyyi demel sa naturel man dama bëgg nit ku naturel nit ku dul tricher. la man ko sa waxoon woo ma une heure et demie whatsapp ma wuyu ma ne ma oustaz maa ngi jéggalu xam naa yaa ngi ci kurus gi ma ne ko ban kurus ku nekk ci kurus dina nekk en ligne maa ngi ci whatsapp bi di liir ay statut ay lu ne ma xool ko. nit da ngay naturel demee sa naturel ku lay bëgg bëgg la ci ku lay bañ bañ la ci mais ñàkk naturel gi mooy lu xew nga bëgg a mottali ko benn affaire dem nañu ba suñu téléphone yii ku ciy photo caméra naturel bi xalaatoo ko sinab rek sinon boo ko ñi am iPhone ñëpp dañ leen di rang xew moo dem ka fa am iPhone du am jàmm dimbali ma foto ma yónnee ma ko dimbali ma photo ma yónnee ma ngay enregistré numéro yoo xam ne bëggoo woon sax ñu am sa contact coono dikkal la ku ne lay sa cër nang ca yem te noppal sa bopp waaye bëgge goo xam ne lu xew nga bëgg caa bokk lu ne nga bëgg koo mel mais kenn mënta mel népp koo gis yaa ngi koy copier ñii ngi teent ñii ngi dagg karaw ñii ngi naan doom ñii ngi sol ay kilote pour am am yoo xam ne yëre yi ñuy sol kilote la ñuy jiital pour pour pour am yaram jaru ko demeel sa naturel ku lay bëgg-bëgg la ci naturel rek moo am solo naturel rek moo am solo demee la sa naturel ku lay gis bëgg ku lay bëgg bëgg la sa loolu la oustaz digal euh, sama mbokki soxna yi ñu bàyyi ko xel waaye oustaz damay taxaw tuuti si wàllu euh, téléphone yooyu nga xamante ne nga ko muy sap yeeg loolu Snapchat yi tey ji ngay gis jigéen mu nekk si euh, changé méthode am changé kanamam nekk beneen nit ku mel ni Omar gis ko daal di ko bëgg ñëw mais bu ñëwee këram fekk ci sens contraire boobu jigéen lan nga koy digal. moodu moodu yi ñoo war a yeewu ku ci amagul kayit ñëwagoo Sénégal jigéen ju lay envoyé photo naan la pour takk lànkal bàyyil ba ñëw cent 360 yi bis boo ci dépendre ba yónnee gura di nga ñibbi si dajeeg sa soxna naan ko soxna si baal ma faatu fan la dëkk fii. parce que da koy jaawale doo ko xàmmee <laughs> da ngay bàyyi ba ñibbisi si photo yi leen di envoyé meluñu noonu may wax ak yéen fii laa ne meluñu noonu parce que léegi dangay soppeeku mel ni la neex lii ci nga mën a tojee bopp couleur boo indi xeeb ko moom di ko niitaat doo ko xàmmee te loolu dara àdduna jaru ko kon na ngeen naturel ci lépp lu ngeen di def ku leen di bëgg bëgg leen ci seen naturel sëy du caaxaan balaa ngaa takk nit ki na ko bëgg balaa ngaa bëgg nit ki na ko xam mais xat ga lay na damay yónnee guraak tànki caaxaan taxumaa jóg yónnee tey maye tey daf fay war a jug sëy yu bari yu tas ñàkk bëggante moo ko tas ku jël sa alal di ko dugal ci jigéen dangaa ñaan yàlla ànd ak moom à vie sëy yi ñuy caaxaane nanu ko bàyyi takk lëndi fase mardi gi daf fee war a jug nanu ko bàyyi nanu boole ñi bëggante tey waxtaan su problème amee ku fay dem sa kër ñu xool ña mën a waxtaani ñu waxtaani te bañ a gaawantu ci fase xat ga lay na fase naa la baaxul te yonent bi nee na abgadul xalaali indallaahi attalaaq li yàlla gën a bañ mooy fase daganal na ko mais bëgg ko parce que bu sañoon moom yàlla képp ku ànd ak sa soxna à vie dee moo leen di tàqale mais fase du am seen diggante bu sañoon moom yàlla képp ku àndal sa soxna avi lay doon maanaam dee moo leen taxale yàlla na yéex waaye fase fase du fa dox kon nañ si bàyyi xel bu baax a baax waaye oustaz dafa am ñoo xamante ni di nga gis ñu bëggante ku góor ki ku jigéen ki bëggante lool waaye parent ku jigéen ki da laaj alal yenn saay yenn saay parent ku góor ki danakaan doo ko tàggal ndax du sa nawle euh, nawle moom ca yàlla amul nawle ñun ñoo ko xam ay géer ak géwal ak tukulóor ak pël ak olof ak séeréel déedéet yàlla xamu ko inna akramakum indallahi atxaakum yàlla nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla lañu soxla ci nit ak qualité ak jikko paaka ay askan ak waaso amul solo ca yàlla ku ñëw bëgg sa doom nekk jullit may ko ko mais góor boo amee fayda ñëw di takk jabar yor deux cent mille wala trois cent mille ñu ne la un million laa laaj mais ba ko fa seeti keneen jigéen du xaru laadum bañ lay waxaale loo naan la joxeel nangam jaru ko nit ki noppam képp la bu bañee nga seeti mor génération bi mujjee judd ñoo gën a rafet gën a féroce gën a baax dàq lépp ku la ci nara sonal ne ko fa ñukk seeti leneen. bu dee seytaaneem nga jëm koo muñ fii lu waay mënta bàyyi amut ku dul yàlla. saas mbëggeel la li ma la wax sa papa ak sa yaay rek nga warta wan mën a wan gannaaw. Mhm. nit deretu góor xam nga dafa am ñoom deret dafa am ñoom deret ji ci ñoom <laughs> ku leen bañ ñu bañ leen am na ñoo xam ni deret ji circulé ci ñoom ku leen xeeb ñu xeeb la mbaa xam nga ni am na ñoom seen deret nanguwul nanguwul nanguwul xeeb ku leen xeeb ñu gis seen bopp looy bëgg rek bëgg ci ndànk comme la yonent ba waxoon ahbib habibaka xëw nan bëggal ndànk parce que ëllëg mi ngi ñëw te xamoo nu muy demee li Iran daw naan koy àndal sóoraaleel bisu tàqalikoo ba lu rek daf ca ndànk bis pour bis buy ñëw du la bett koo warta mën a bàyyi ku yàlla amul képp koo fiy bëgg ay mbokkam di la teg condition yoo mënul di la laaj lu dul jeex ne ko fa ñukk ne yekk bu naqari seeti moroomam ñi mujjee juddu ñoo gën a rafet gën a féroce gën a baax ah doy na waar oustaz ñi mujjee juddu ko ñoo gën a rafet ñoo gën a féroce oustaz Modou moo ko wax waaye ba tey dañ ko kay nangul waaye oustaz belle-mère yi di seen doom yi di wàcc seen gor indi ko si bi kër gi bàyyi leen ñu ne fii doo doo ko fi sëye ndax bokkoo ak ñoom waaw daf ci am goro yoo xam ne nag ndeysaan ñoom ñooy yàq seen sëyu doom yi parce mënoo sëy sa sëy am doom sa doom am soxna nga war koo booleek sa doom doomoo leen ñoom ñaar ba pare mayoo sa doomu sa sa soxna sa doom jàmm fi bari am na mère yoo xam ne ñoo yàq seen sëyu doom yi parce que yow sëy boo xam ni yaa yaa ne ca digg ba ni lagaj mayoo sa doom jàmm teg ko pression sa soxna si nangam te en général koo dégg muy critiquer jabaru doomam la mu bëgg mooy mu takk mbokkam bu fekkee aawaloowul mbokkam lay tax du ko may jàmm mooy kamu choisiroon takkuñu ko day day fatt sa nopp yi pour nga gaaw takk ñaareel boo gisee léeg-léeg njëkke yeeg goro yi di yéene léeg-léeg seen soxna yi doom yi ay wujju parce que danoo juboowul ak ñoom bu nu week yow nag ñoo la laan ah yow na sa xel dal côté boobu rek tëddal nelaw doo am wujju waaye bis bu nu xuloo xulooweeg yow ñooy dox ay tànk pour nga wut wujju te jabar ku la conseil ba nga takk ñaari jabar te mënoo ko bis booy am problème yaa koy wéete bàyyi leen ñi ngeen di déglu ñu naan leen sa jabar ji dafa yàgg ak yow boobu ba léegi amoo leen bant ku amagul kër waroo takk ñaari jabar di sonal sa bopp na nu wax dëgg benn boo mënta xont boo yoree ñaar war leen a xont foo jëm nee ma leb bay bëgg a dee te loolu du àdduna ku nekk nga mën a àndal àndal ak moom bu yàlla yóotu yóotoo sa ubbi ko ba mu yaatu sa wërsëg yaatu nga mën a takk ñaar nga takk ñaar mais am sa benn mu déggal la noppal la say mbokk jubawun ak moom tax ñu naan la takkal wujj nga dof dof lu ba takk da nga tëdd guddi yoo xam ne bu ñëpp yu nelaw ni ngay wax ni moom nga am de te amewoo ko dara taru taxulaa bañ a nelaw lu dul ay xalaat yu bari dara dara taxulaa bañ a ne la dul ay xalaat yu bari kon sama mbokki goo ñi nañ bàyyi xel eh, kàddu yi nga xam ne oustaz mu ngi koy wax waaye ba tey rek oustaz eh, yenn saa tamit nga gis koo xamante ne ay mbokkam ñoo ko takkal jabar indil ko maanaam dañ ko koo tànnal moom nag mu dem ba jëmmi jamono gis ko mu bëgg mu jaral ko mu dem uti ji appartement ne ko ne force mu takk ka lan nga lan koy digal parce que dañ koo xañ ki mu njëkkoon a bëgg heure nu la xañee ki nga njëkk bëgg ne moom nga bëgg denc soxna heure nu la ko xañee nga takk jabar kut kaa kut bu amagul jëkkër dina la xaar te kooku bu ñëwee ki fi ñëk ñëw moom na jàppee boppam poupé rek xam ni kay lañ bëgg am na ñoo xam ni seen yaay seen yaay ñoo leen di wax ni takkal diw ñu ne yaay comme moom nga bëgg naa ko takk ngir yow ñooñu ñooy seen jabaru yaay am koo xam ni mako ma ko mu bëgg lu neex papaam def ko takk jabar ñu tuddee kooku jabaru papaam mais gis nga am na loo xam ni kenn mënu koo naxasaale ki nga bëgg day toog xaar la boo ko takkee day ñëw jël palaasu kii te kii yéen ko tooñ dafa am jigéen ñoo xam ne seen parents yi ñoo leen tooñ parce que ñoo warul nangu ñu leen di may kuñ bëggul koo xam ni am na kum bëgg àdduna bi yëpp xam nañ ni kii la bëgg ba buñ woon tey diw day takk jabar ñëpp naan xanaa diw lay takk ndax xam gi nu xam ne ñoom ñaar yàgg nañ nga xañ ko ko may ko keneen seen diggante du neex am na ñoo xam ne ki nu takk nii day tëdd ci ñu ci suuf jubóowuñoo ak ñoom parce que bëggante wuñ te ñemewuñoo tas sëy bi parce que ñemewuñ seen papa loolu erreur la loolu erreur la kon nañ bàyyi ku nekk sa yëkk nga xamante ne moom la bëgg moom la oustaz di jàngale ba tey waaye oustaz ba tey dañu dellusiwaat si ñi nga xamante ne moom mooy belle-mère yi li maanaam nga gis ñoo xamante ne dañu naan sama sama goro lu mu am njëkkee ba ci kër ga da ko war a mën a am dem nañ bay jël seen i doom yu jigéen di ko yemale ak ki nga xamante ne mooy sëy sa kër ga ba yow mi di borom kër sa xel day jaxasoo njëkkee daal dafa war a xam ne njëkkee la goro xam ni goro la soxna xam ni soxna la soxna bu ñëwee ci kër njëkke ak goro ñoo ko war a accompagner di ko muñal di ko jàppaleen parce que moom dëkkul ci kër gi daf leen a fekk si yéen a ko war a yaatal ku am gan da ngaa war a yaatal sa gan gan gi mooy soxna si ñëw ci kër gi mais bu ñëwee ngeen koy kompaloo di ko wokkante di ko di ko def yu sew am na jigéen ñu sonn ci kër yi de am na ñoo xam ne ñu ngi leen di wokkante di leen def yu sew buñ toggee ñu leen di saboté sa kaani gi daa weex di la saboté di la def yu sew yoo xam ne boo sa xol bi bu bu sa xol bi bu ndawee da ngay dee te ñoo lay rey di la jaxaseeg sa jëkkër da ngay ne ci kër di sëy yow intention sëy nga am da ngay ñëw ci kër di sëy am intention sëy mais fekk fa njëkke loo xam ni du la bàyyi nga sëy wala goro boo xam ni moom balaa bëgg da ngaa génn kër gi yow loo xam yaa ngi koy def mais boo toggee ñu saboote ko sooy fóot ñu ne danga ma danga ñoo war a fëgg laaj ñu loo tilimle boo fëggee sa goro mu jox la juróomi paan sa njëkke sànni la 4 paan muy 9 paan te yow tilimle nga 2 paan muy 10 paan foo koy fóotee te boo ko fóotul ñu ne daa bon dañ lay teg lu metti loo xam ne doo ko sañ a riposte te boo ko riposté ñu ne daa bon sëyul sëy bi léegi kii sëy ci kër gi moo war a fóot yëre njëkk njëkke gi ci kër gi ne xogg xoggaaral yor téléphone di manipuler que de lu te mu fóotal boppam fan ngay sëy sëy di fóot sa yére njëkke nanu waxante dëgg réew mi amul gaynde amul segg amul golo ay nit lanu ku bañ a dégg dëgg nga naaw wala nga xam noo def wala nga nekk effraire gan seey oustaz euh, sa dernier mot lan ngay tàggatoo ak askan mi lan ngay dénk jeunesse bi jërëjëf euh, Ami Gningue maa ngi am mbégte lool bokk ak yow émission di ñaan Safina FM yàlla na ko yàlla gën a barkeel euh, tele la bu am solo boo xam ne mu ngi ci yoon te li nuy séentu ci télé yëpp ñu ngi koy séentu ci Safina FM macha allah muy télé boo xam ni boo dee déglu rajo bi ay boroomi xam-xam ñoo fa nekk nekk ay jàmbaar euh, ñaan yàlla yàlla ko yàlla barkeel. li may dénkaane rek mooy nanu delluwaat ci yàlla te jaamu ko te xam ni wàccee wunu ci àdduna moom yàlla lu dul ñu jaamu ko jéem a laabal xol yi bëggante di jéllale tey jéggale lu waay ëppalee nit dimbali ko te yàlla tax ku la tooñ nga baal ko jéem a jox sa bopp yàlla balaa ñu laa jox yàlla maa ngi ñaanal. mboolem téléspectateur boo xam ne mi ngi seetaan Safina FM di ñaan yàlla émission bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla nu bokkaat yeneen i yeneen i yeneen i plateau incha allahu taala ta sax noonu lay demee maa ngi ziyaara ñëpp di bége ñëpp di nuyu Mansour Fall di nuyu waa Safina FM Oustaz Pa Makhtar Sylla mi ngi ci yéen maa ngi koy ñaanal di nuyu ñëpp yàlla yàlla barkeel leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aleykum asalaam rahmatullahi taala barakaatu oustaz ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a ci sa disponibilité sa yaatuwaay sa dal li nga ñu defal nii mën naa ne yombul waaye alhamdulilah rabbil alamin nekk nga koo xamante ne la ma waxoon ca commencement ba moom oustaz Modou Fall kenn la ci société bi mu nekk ku disponible koo xamante ne dara yittalu ko lu Sénégal jëm kanam rawatina jeunesse yi ndax dañu naan jeunesse Sénégal moom moo war a yool réew mi ëllëg te yaakaar oustaz ku koy bàyyi xel di ko déglu mën naan di nga tegu ci yoon boo xamante dina stable te alhamdulillah rabbil alamin ding ko wax ndax bayawul ken côté bu nek nak mu ngi fay jaar ngir lan jeunesse yi meuna teggu ci yoon kon nak ñepp di baye xel sa su nek niñ koy jaajeufal bu baaxa baax ni ma koy waxe sa su nek rek di jaajeufal wa Safina TV ñepp di jaajeufal bu baaxa baax ki nga xamantene mo moy sama kamera bi di petit di euh, petit ñu ngi koy ziar bu baaxa baax di ñaanal tamit Haj Mansour ak ñamu bokkal di len ziar bu baaxa baax di ziar di ñaanal bu baax tamit ki nga xamantene mo jaar fi sañ bi ni ma koy waxe sa su nek muy euh, Mansour ci Tëngéej dàngu Pomba Diop bokk fa dem rek mu defal la nii moo génn fii fu baax fii di ko jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni lii ma nekkoon seen émission si wàllu sëy ngeen ànd ko ak euh, soxna Ami ñi ngi ak euh, Oustaz ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje fan ñu gàtt fii si biir Safina TV jërë ngeen jëf